yéenekaayu groupe Futur Média l'Observateur ak euh, <laughs> Record jërëjëf monsieur le maire à très bientôt incha allah aywa ñu ñëw ci ñaari yéenekaayu groupe Futur Média muy l'Observateur ak Record à la une de l'Observateur ngi euh, ñëw ci ànd sàmm jikko yi ak itam daal euh, doxalin bi l'Observateur def na ci taxaw seetlu jox na sax kàddu ki nga xam ne moom mooy euh, Mame Mactar Gueye mu ne duñu bàyyi dara euh, nataalu euh, Ababacar Mboup mi jiite ànd sàmm jikko yi mi ngi ci l'observateur lu jëm itam ci lu mitti li fi xewoon muy Fatou Ndoggo Gueye daal muy tëgg boobu jaaykatu wurus bi nga xam ne ki ñu joxañ baaraamu tuuma muy Bassirou Thiam ñu ne nag enquête bi wane na ne moom Bassirou Thiam daal moo faat wala boog moom la ñuy toppee Fatou Ndoggo Gueye defi ñaawteef ak itam ak càcc fecc leneen euh, mu jëm ba tey ci euh, euh, waxtaan bu sama naataango yu nekk ci l'observateur séq ak Mamadou Diop Decroix moom nag daal joxe na xalaatam ci yan ndigg sërëx ndëgg sërëx pardon la ñi nga xam ne ñoom ñooy kujje gi war a moytu maître wàdd moom nag xam ngeen ne moom la ñu bàyyele stade boobu nga xam ne mooy stade bu Diamniadio stade bi Sénégal li nga xam ne nag moom lañ ci fas yéene waxtaanee yéenikaay bi Euh, dellu siwaat na ci ci mbir moomilee jox na itam lu jëm ci wàllum caada Medzo jaata ak Yoro Ndiaye taxaw seetlu ci seen carrière ak lu ni mel euh, lu jëm itam ci leneen muy commissaire bu police euh, ñu ngi koy daal toppee ci fitna gu mu teg ci gune gu góor gu am fukki at ak ñaar lutte avec frappe rëg-rëg moom mu ne daal noppi na ngir rek daga di jàmmaarloo ak Sa Thiès ñu dem ci yéenekaay beneen muy doomu ndeyu l'observateur record ñu dénk ko Malick Thiandoum waaw record spécial la def euh, mu ñëw rek février féerique euh, champion d'Afrique euh, mu mel ni que weeru février yi ñu génn moom li ci yàlla defal Sénégal ci wàllu football moom lay yéenekaay bii di fësal ci février bi tamit niki tey la ñuy dalal stade maître Abdoulaye Wade fële ca jam Diamniadio lépp lu ngeen bëgg a xam ci lu neex lu Sénégal am ci wàllu tàggat yaram rawatina ci football ci weeru février bi jënd leen record ñaar fukk rek lay jar. Futurs Médias di l'Observateur ak Record li ngeen am xibaar yooyu yépp moo xam mu aju ci wàllum politique caada tàggat yaram ak yeneen di ponk omissan bu noppi na eh, ci Météo Express